jàppee te day xañ a ma jóge léegi Kër Massar ci kër yaayam ak papaam fa Doro Gueye yónnee woon pour ñu may ko jabar ñu takk ba noppi ma déparé fi ñëw jëm si fii ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko Doro nag ñoom yónni woon dégg nañu lañu leen wax ñoom tamit dégg nañu ñu wax kon sa sëy bi yàlla nekk ndax Kër Massar gi yónnee woon. Hmm. du fa gan. Hmm. fa la yónnee woon def porte délégation ba. Hmm. fa la yónnee waat ak say mbokk ak ay say kilifa. ndax yow jaar ci yow yóbbu. ndax kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër day jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkallaaw la sa jikkooku gën téeméeri fukki junni waaye ñu kontaan ci nag. ndax dooro li mu def. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay. tamit boo nee da nga koo bëgg. la mu bëgg da koy bëgg la. te moom biñ mu nee la da nga laa bëgg. dawul dara. béykat day xañ a wërsëg. ma léegi Kër Massar. ci kër yaayam ak papaam. fa Doro gi yónnee woon pour ñu may ko jabar. ñu takk ba noppi ma déparé fa ñëw jëm si fii. ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko. amiin nag ñoom yónni woon dégg nañu. ñoom tamit dégg nañu ñun nañ ñu wax. Mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. sëy bi nag mën naa nekk. Mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon. Mhm. du fa gan. fa la yónnee woon def porte délégation ba. fa la yónnee waat ak say mbokk ak say kilifa. ndax yow jaar ci kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër day jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkalla la sa sa jikkoo gën téeméeri fukki junni yoon. kontaan ci nag. Mhm. ndax dooro li mu def. Mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay. tamit boo nee da koo bëgg. Mhm. la mu bëgg da ko koy bëgg le te moom biñ nee la da nga ma jóge léegi Kër Massar ci kër yaayam ak papaam. fa dooro gi yónnee may ko jabar. ñu takk ba noppi ma déparé fa ñëw jëm si fii. ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko. dooro nag ñoom yónni woon dégg nañu. ñoom tamit dégg nañu ñun nañ wax. Mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. sëy bi nag mën naa nekk. Mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon. Mhm. du fa gan. fa la yónnee woon def porte délégation ba. fa la yónnee waat ak say mbokk ak ay say kilifa. ndax yow jaar ci kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër day jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkalla wala sa sa jikkooku gën téeméeri fukki junni yoon. ñu kontaan ci nag mhm. ndax dooro li mu def mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay mhm. tamit boo nee danga koo bëgg la mu bëgg danga ko koy bëgg le te moom biñ mu nee la danga laa bëgg dawul dara ma jóge ci kër yaayam ak papaam fa woon pour ñu may ko jabar ñu takk ba noppi ma déparé fa ñëw jëm si fii ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko dooro nag ñoom yónni dégg nañu wax ñoom tamit dégg nañu ñun nañ ñu wax mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel sëy bi nag mën naa nekk mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon mhm. du fa gan fa la yónnee woon def forte délégation ba fa la yónnee waat ak say mbokk ak ay say kilifa ndax yow jaar ci kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër day jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa kon sa lii nga sol tabaarkalla la sa sa jikkoo gën téeméeri fukki junni yoon kontaan ci nag. Mhm. ndax dooro li mu def. Mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay. Mhm. tamit boo nee da koo bëgg. la mu bëgg da ko koy bëgg te moom bi nee la da nga laa bëgg. Kër Massar ci kër yaayam ak papaam. fa dooro gi yónnee may ko jabar. ñu takk ba noppi ma déparé fa ñëw jëm si fii. ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko. dooro nag ñoom yónni woon dégg nañu. tamit dégg nañu ñun nañ ñu wax. Mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. sëy bi nag mën naa nekk. Mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon. Mhm. du fa gan. fa la yónnee woon def porte délégation ba. fa la yónnee waat ak say mbokk ak ay say kilifa. ndax yow jaar ci yow yóbbu. ndax kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkalla wala sa sa jikkooku gën téeméeri fukki junni yoon. kontaan ci nag. Mhm. ndax dooro li mu def. Mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay. Mhm. tamit boo nee da koo bëgg. la mu bëgg da ko koy bëgg leen. te moom biñ mu nee la da nga laa bëgg. dawul dara. béykat day xañ wërsëg. ma jóge léegi Kër Massar. ci kër yaayam ak papaam. fa dooro gi yónnee woon pour ñu may ko jabar. ñu takk ba noppi ma déparé fa ñëw jëm si fii. ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla sëyam bi yàlla barkeel ko. dooro nag ñoom yónni woon dégg nañu. ñoom tamit dégg nañu ñun nañ ñu wax. Mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. sëy bi nag mën naa nekk. Mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon. Mhm. du fa gan. fa la yónnee woon def forte délégation ba. fa la yónnee waat ak say mbokk ak say kilifa. ndax yow jaar ci yow yóbbu. kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër day jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkalla la sa sa jikkoo gën téeméeri fukki junni yoon. dañu kontaan ci nag mhm. ndax dooro li mu def mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay mhm. tamit boo nee danga koo bëgg la mu bëgg danga ko koy bëgg le te moom biñ mu la ma jóge léegi Kër Massar ci kër yaayam ak papaam fa dooro woon pour ñu may ko jabar ñu takk ba nopp ma déparé fa ñëw jëm si fii ma ñëw nag di ko félicité di ñaan yàlla seen bi yàlla barkeel ko dooro nag ñoom yónni woon dégg nañu ñoom tamit dégg nañu ñun nañ ñu wax. Mhm. kon sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel. sëy bi nag mën naa nekk. Mhm. ndax Kër Massar gi mu yónnee woon. Mhm. du fa gan. fa la yónnee woon def porte délégation ba. fa la yónnee waat ak say mbokk ak ay say kilifa. ndax yow jaar ci kuy jaar ci yow day jaar ci sa néew kër jaar ci sa néew kër baay jaar ci sa ay kilifa. kon sa lii nga sol. tabaarkalla wala sa sa jikkooku gën téeméeri fukki junni yoon. kontaan ci nag. Mhm. ndax dooro li mu def. Mhm. ndax bëgg boo gis yëg moo koy fay. Mhm. tamit boo nee da nga koo bëgg. la mu bëgg da nga ko koy bëgg leen. te moom biñ mu nee la da nga laa bëgg. dawul dara. te kër ga yaa ko. yàlla naa ko gën a rafet ji ko teg naa si yow. say copine. yàlla naa ko gën a rafet ji ko teg naa si yow. say copine. man nag sama doom bi ma doon. I shine, she's so wet, she's so wet Ila wani mamelche ya I don't mind, she's so wet, she's so wet Baby, but when I shine, she's so wet, she's so wet Ila wani mamelche ya I don't mind, she's so wet, she's so wet Baby, but when I shine, she's so wet Lama demba rafche ya Makana, ganema Takura gana